ñu jàkkaarloog ASC Darou Salaam comme ni ngeen ko xamee d'ailleurs ci euh, la grande finale bi ñuy préparé bu tournoi CACD si foot féminin alors euh, ñu jàkkaarloog coach Baye Mor jàkkaarloog aussi ki nga xam ne moom mooy capitaine Khady ñu bàyyi leen rek ñu daal di nuyoo donc wax ñu également nan la ñuy waajalee li nga xam ne moom mooy finale bi. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp xam nga di ziare xam nga képp ku dëkk jëm ñaa ñu ngi lay nuyu xam nga di wax ñu ngi teewal finale bu am solo xam nga. di wax ñëpp képp ku dëkk jëm ñaare nga ñëw soutenir say doom xam nga xam ne fii lañ dëkk ñëw jàppale leen évoluer leen xam nga ñëw xam nga incha allah daal. salaamaaleykum waa maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa jam ñaajo di nuyu bu baax waa Daaru Salaam ah gis nga ñu ñoo koy préparé bu baax ndax suñu équipe tout le monde ñoo ñu def loo kii bi laaj rek incha allah. pare si lépp te incha allah dinañ def. te wane tamit luñ doon wane tamit ñooñu def tout le possible entraînement bi ñu koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu koy defee comme nu mu fa waree rek hmm. lu sport bi laajee ñu ngi koy def te pare nañ bu baax incha allah équipe bi yaakaaroon nañu du tollu fii ndax dégg nañ lu nekk fii la ñu dóor de dégg nañ lu nekk ne waroon nañoo décourager mais dañoo gëm suñu bopp ñu xam ne ni incha allah dinañ def tout nos possible affaire yi loolu kese la sport yi moom noonu la. megam sa bopp rek. xaw ñu si sant yalla rek lepp lu ci war dal ñu koy def moy liggey ndax moment bi nii dafa nek lo xamanteni moment mental la quoi nek lo xamanteni dañu ko liggey li ñu liggey liggey nañ ko bare aw match bi dafa nek match boo xam ne mental mo koy gañ yaa comprendre da dafa nek adversaire bo xamanteni xam nañ leen kan, xam nga te dañ leen di seetaan chaque match aussi te dañuy dem bu baye lepp lu ñuy def dem seetaan leen xam nga kon xam nañ bu baax lan mo ñuy fekk fofu non ta xam nañ sen capacité aussi. kon du ñàkk ñu préparer côté mentalement aussi xam nga li ñu doon liggéey nag xam nga liggéey nañ bu pare di xaar yàlla may ñu ndam aussi ñuy féliciter ni booy jigéen ñi xam nga ndax kenn bàyyiwul kenn booy ja Daaru Salaam yëpp xam ñu ñëw soutenir seen joueurs yi xam nga Daaru Salaam yëpp ñëw nañ di ko soutenir di bañ commencé ba léegi ñu ngi leen di ëppale xam kon ñu si doole sant yàlla bu baax ñuy wax match bi di ñëw gars yi ñoo gën see jàpp démb rek ñu ngi doon def benn tee Daaru Salaam lépp ndax dara warul ko woon lu dul match bi quoi moo waraloon tee devant bi xam kon ñu ngi koy préparé bu baax a baax aussi côté bépp nag ñu ñaan tamit képp kuy ñëw mu mu ñaan jàmm quoi yaa ngi comprendre mu ñaan jàmm xam jàmm am fa ñu si waat ndax ñu ñëpp a bokk koñ bi ku ñibbi wala kuy foo mënti dem boo ñibbee jëm ñaare nga yeewoo aussi say parent mooy kon ñu ñaan jàmm jàmm am mu ñu dem. que le meilleur gagne quoi xam yàlla la may ndam mais ñun tamit ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam si xol point faible gars yi mooy loolu am na ñaari point faible dama leen di deux zéro duma jàpp suñu bopp de mais ku xam Daaru Salaam rek non violence ñun lii foo kese lañ ko jàppee que le meilleur te incha allah def non violence incha allah di bu baax xam nga ci initiative naaj bi def xam ndax vacances à domicile dafa nekk loo xamante ni nit ñi dañ koy seeti ji feneen mais gars yi ren boo xoolee jëm ñaar yëpp fii lañ toog di ko di ko def di ko feete xam nga mu nekk lu neex loo xamante ni xam koñ yëpp jëm yëpp ñu ngi koy mbégte woo xam nga di ko tiitaroo aussi mooy loolu ñu leen si sant bu baax a baax xam nga di leen ñaanal ak continuer bu baax a baax mais wax tamit gars yi jëm ñaar ñëpp nañ ñëw soutenir aussi seen doom seen seen sët xam nga ñoo fi nekk di fubal xam nga ñuy ñu si sant yàlla bu baax a baax nag waaw loolu la amoon lu may wax di wax waa Daaru Salaam ñëw si match bi xam nga door jokkoo ñëwaat ci fair play waaw wasalaam